mbokk yi xam ngeen ni nun day kenn ku ci yàlla na toog nga tawat tawati yaram ak jum mën a doon su dee yaa nga yëg metti dana la jaral nga xëy bàyyi sa liggéey dem ca ña nga xamante ne dañuy faj yaram nga wax leen la la dal ngir ñu wax la lu lay faj loola tawati yaram la amna jenen tawat yo xamne ci biir yaram bi la nek kum gaar do dem ci docteur mu dina ko fajal te bu la topé boku fu jitt man la tabal tawat yoyé tawat nak xam ak nak bu ko xamé ñu ngi so tawat yoyé mbokk yi moy tawat ci xol yi bu ngeen fàttali ko ci tafsir suuf suara afaraayta bi sinin summa jaahum ma kanu yu'adun ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون وقلنا لأن عمرو بن ميمون وميمون بن مهران خير بن بسلمت حسن البصري يل كونسل تب خلم يل كابر يوجد نما غشا كلا قصد بنتل ونا نحن نبقى إذا ننجيك جاكم يا بنيو يلبوا قول سنبقى نخيتي فيبر ييغا خمني كمو دل مو جنبون كافير اسكتال نلا ولا ديت est ce que danañu dal xeeti tawat yooyu mbokk yu bari la waaye mën naa cee jël benn rek ala sabili misaal ngir muy dem ci détail mooy alxasad feebar bu ñu tuddee añaan alxasad feebaru añaan su ma ko doon définir damay wax ni mooy feebar boo xam ni mook cancer cancer de foie benn lañ amut leen wutale nit ki yëgee dafa cancer ci xol xol bi dafa am ak góom na yëg ni xasat añaan timit moom it bu dikkee góom lay doon ci biir xol saataa nga gis koo xam ni añaan dalu ko waaye cancer de foie moo ko dal saataa gis koo xam cancer de foie dalu ko waaye beneen bu ko gën a bon muy añaan moo kon añaan mbokk yi góomu xol la boo xam ni bu xësee màtt xol borom lam koy jural jural ci ay musiba yu bari na digënteem ak boromam digënteem ak nit ñi digënteem ak boppam digënteem ak boromam mooy mi ngi def lu bon lu suñ borom tere am yaxsuduna annaasa ala ma aataahum allah suñ borom ni moom ndax nit ñi ñenn ci ñoom dañuy añaane seen morom leen yàlla jox ci ay xeeti xéewal xanaa xamoo ne loolu sama dem dama man yàlla bala naqaree kon li yàlla def moo la naqari su fekkee diw sàngam li mu am wala li mu la ëppalee ba nga añaanee ko ko suñu borom ne xanaa da ngaa fàtt ni mën nga gërëmut sama dogal ndax fa qad aatayna ala ibrahima alkitaba wal xikmata wa aataynahum mulkan azima xanaa xamoo ni waa kër ibrahim yéen ci yàlla ibrahim maa leen joxoon téere maa leen joxoon xam-xam maa leen joxoon xereñte te joxoon leen ak nguur digganteem ak nit ñi mooy nit aji añaan ci na yëg ni ki muy añaanee ci jëmmi boppam saa bu yëgee ni diw sàngam daf may añaane rek sa digganteeg moom dootul jagati ba faaw sa digganteeg sa bopp mooy aji añaan foo ko fekk xolam du neex ndax li añaane saa boo xëyee di gis muy gën di yokk ngay gën di misère da gis koo xam ni léeg-léeg feebaru yaram moo ko dal muy di jeex di misère di jeex añaan day def loolu maanaam doomu aadama bu fekkee feebaru añaan mi ngi ci moom leg leg dang koy gis muy misère di jeex ndax li muy añaan saa su ko gisee rek xol bi day gën di mat di togg mu ngi mel ni góomu xol boo xam ne leg leg rek day togg di togg di gën a yokk bonu añaan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal ko ci musluwaay yi gën a màgg ci alquran suratul farab wa min charri xaasidin ida xasad qul audu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri xaasiqin ida waqab wa min charri nafaataati fi l oqad yi yëpp ay xeeti musuloo yoo xamante ni ci ñiy fas natt ci biti wi ñuy jël ay bijjët ñuy jël ay xaab ñuy jël ay xaati ñuy jël ay affaire di ca safli benn bu ci nekk moo ci musuloo ko nag mu seet ba mujj wa min charri xaasidin ak yàlla nag ma musal ci ayu kay añaan ida xasad jamono ba muy añaan lan mooy añaan mbokk añaan mooy sa mbokkum julit mii nga nekkal suñu borom am lu ko defal te defalu la ko au lieu que nga def dara lislaam sant mooy te gëm ni yaay moom mooy yow nga ñaanal ko yàlla barkeel ko te bañ koo yàq te it nag su dee bëgg nga lu ni mel nga ñaan suñu borom ak suñu borom moom yor na wala tatamannaw maa faddala allahu bihi baadakum baad li yàlla jox nit ki jëru nga koy añaan di ko soxoree ba nga naan ay su ko للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا واسألوا الله من فضله غورني يالا لن فيتي لفن فيتي جيجين يالا لن فيتي لن أم يو بفكي دنا بغي لديو أم نيانال يالا باركيال كو تبون يالا يو نيان يالا مميلا لم كو ميلا مميلا كي واسألوا الله من فضله وصيرت بلان اللهم إني أسألك من ñaareel mooy kii nga xam ni damaa nekk moom mu am lu mu ma ëppalee daab dëkkandoo la da ngeen a bokk dëkk da ngeen a bokk réew da ngeen a bokk kër loola ko suñu borom dénk moo xam alal la moo xam xam-xam la moo xam doole la moo xam mën a lijjanti la moo xam ab la lu mu ca mën yow saa boo ko gisee sa xol dafay tàng ndax lii kat bëggoo mu am ci moom ci yow nga bëggoon mu am ci yow wa illaa même boo ko jëndee sa bopp yow moom jiw moom da nga koo xeen rek yéene woo ko mu am ba tey bu fekkee wax nga li na ci mooy la la gënal mooy mbir ma bu yàqoon da ngay ko lay résultat bi lay wan ni añaan nga jàpp na rek mooy loola nga ko doon añaanee bis bu xëyoon ñàkk ko rek victe ngay yëg waaye doo yëg naqar wala ayaasu billah koo ko gën a bon cancer de poids parce que day yóbbu sa war ñun yàlla bi nee na añaan dafay lekk wal xasuudu laa yasud ku añaan du ma sa nekk njiit mukk maanaam du ma sa nekk ku ku lislaam di di di di jox cër ba muy mën a jiite nekk ñoo xam koo xamante ni dana mat njiit añaan mbokk yi doomu aadama yi danañ koy def ci anam yu ne bu dee ci wàllu alal la di nga gis nit ki mu ëppee la alal da ngaa fàttali ne suñu borom moo séddale woon ci biiru yaay yusawwirukum fil arhami kayfa yasha te it qasama rizqa walam yansa ba sun borom séddalee ba noppi mbokk yi kenn ku ca nekk la nga am boo dikkee ci àddina loolu rek ngay am sun borom dogal diw sàngam mii moo la ëpp alal ah sun borom mu ni yàlla day yem sutur risqa li ma yasha wa yaqdir mooy yaatal wërsëgu kii xatal wërsëgu kee والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء yàlla mu ne moo gënale ñenn ñi seen wërsëg yaatu lool ñii suñu borom xatal seen wërsëg moo ko defee noonu gis nga def def boobu nag kontaan ca day wane ne yow sa ngëm yàlla baax na mu naqari la dafay wane ne yow gëmoo dogal te soo gëmul dogal yëgal ni manqué nga benn ponk ci ponk ngëm yi kon sa ngëm yàlla baaxul ndax ngëm yàlla ak l'islam ponki l'islam ak ponki ngëm nga ñiy am na seen xeeti note yoo xam ne coefficient dafay yokk su ko defee suñ nee la mat mat kat quarante lañ ci laaj wala moom niñ koy multiplier moom muy gën a bari gis nga booba soo ci échecgee boo amul chance examen boobu ñàkk nga ko yow ponki islam ak ponki iman ñoo bokk yam gis nga benn bokk ci yàqule rek saxee foofu amul luñ koy remplacer ñu koy am naa fii fen naa fii jëw naa fii jaxase naa fii muy ay xeeti bàkkaar yoo xam du tëb ponki ngëm yi daal waaye ponki ngëm yeeg ponki lislam ca benn manqué yëgal ni yàqule la te saa boo añaanee yëgal ni gëmoo dogalab suñu borom te boo gëmul dogal suñu borom amoo imaanu bil qadr war ngaa tiit yàlla subhana taala moo séddalee wërsëg noonu ko nit ki na gëm ni diw kat moo ma ëppal loolu dogal suñu borom su dee ci wàllu koom-koomu àddina beeyee yi nga xamante ni yëpp mën nañ koo lim suñu borom moo ne undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd xoolal rek man yàlla ni ma gënalee ñii ëppale ñi ci des ñii ëppale ñi mu wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila alaxira kat mooy ëpp ay daraja waaye mooy ëpp tamit ay gënalën kon mbokk yi doomu aadama dafa war a natt boppam bu xool ndax moom na ci xolam benn buy dox koo xam ne añaane na ko wala bi saa bu amee rek yëgal toskara ji dal dal añaan googu nag mbokk yi musiba ji dafay këpp ci sa digganteeg sa borom sa digganteeg gis nga aji añaan foo ko fekk du nekk à l'aise li ko waral mooy saa bu gisee añaanee wala la muy añaanee rek da ngay gis xol bi di commencé fit boo ko fudd parce que du bëgg loola màgg du bëgg loola baax loolu nag mbokk yi bokk na ci nit ki la ko koy dindil ba ci njëkk mooy di tàllal la ko borom subhanahu wa di ko ñaan nga xam ni bul añaanee benn doomu aadama ci kaw suuf loola yàlla rek moo la ci mën a dimbali te jikkoog jikko suñu borom rek moo la mën a dimbali mais musal ci beneen bi ci des mooy doomu aadama ci boppam dafa am ay jumtukaay yu ko suñu borom jox pour mën a xeex ak boppam fa alhamaha ujuraha wa taqwaha moye yi tax nga taay taay mi ngi ci yow moye yi tax nga baax mi ngi ci yow léegi nag yàlla mu ngi jëlal say matukaay bopp xad aflaha man zakkaha kon yaay góorgóorlu lu a xeex ak sa xol pour añaan di lañ waaye nga yéene sa mbokk ci nit lu baax bokk na ci yi dindi mooy ngay fortanteeg sa bakkan saa boo yëgee ne diw sàngam mii de maa koy añaanee sax nga dem julli ñaar rakk ñaanal ko yàlla barkeel ko parce que bakkan bi kat ammaaratum bi suu illa ma rahma rabbi li may jeexale mooy gis ngeen añaan dugg na ba dugg kër ab yonent bi yàlla nga xam ngeen añaan tey ci biir borom xam-xam yi ma nga fa wutkati kër kër ngeen yaakaar ni moo war a gën a mën a baax kër goo xam ni yonent bu yàlla sell ñuy wax yaqub moo ko sos jur ay doom yoo xam ne ñoom ñëpp ay doomi yonent lañ doom yoo xam ne ci seen biir sax ay yonent lañ dalal jur ñoo xam ne ñoom ñooy tànnee ci kaw suuf ca waxtu waaw jamono ba yaqub di dund yëgal ni kaw suuf biir kër yaqub mooy tànnee ci ñi ci kaw suuf allah te añaan dugg na seen biir kër ndax gis nañu yusuf ak tawfiq yi ko suñu borom defal nekk xale teel a meññ teel a feeñ teel a fës ñu commencé di ko ko añaane ndekete yëg nga ni nit dina bokk ak nit nay ak baay añaanee ko xam-xam di ko yàlla dégg nit dina bokk ak nit nay ak baay añaanee ko alal di ko yàlla dégg gis nga nit dina bokk ak nit nay ak baay te bu xëyoon yàqu la sax mu kontaan wala ayasubillah moo tax musiba ju rëy rëy rëy yóbbee na ba gis ngeen nañ def ah seen baay yusuf ak mbokkam yi moom la suñu bàyyi gën a bëgg inna baana la fi dalal mubin lan la uqtuloo yusuf léegi nañ ko rey sax mu jeex xool doomu aadama añaan mën na ko yóbbee ba naa ko rey léegi yow lim koo rëy am na lu la ci sa xol ci waaji bu deeyoon baa bu xëy accident bi sax mu jël aw itraxuuhu arda yaxlu lakum wajiba wajhu abikum wa takunu baadi qawmin salihin kon ndeke añaan ndeke biir kërub yonent sax mucc gis nga jigéen ñi xam ngeen ne añaanante googa amoon ndax ay wujje yoo xamante ni kii moo jur yusuf jur benyamin kee moo jur ña ca xale yi ci seen jëmmi bopp ak ya nga xamante ni moo doon xew te seeni yaay am ca wàll loola def jeexintal ci seeni xol ba ñuy gënalante ba loola waral ñu mën a def musiba def kon mbokk yi melokaan wi ngi nii woo xam ne wala jikkoo ngi joo xam ne moo gën a bon cancer de jaadu na saa boo jullee ngay ñaan yàlla subhanahu wa taala bokk na ci ñaan yi ci gëna matale moy ñaan nga ngay ñaan ci ubi julli te bok ci azkaru iftitaahi sala muy wahdini li ahsani al axlaaq la ya'di li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant yow sunu borom yàlla nak mu gindi te gën ja kawe ay jikko yu rafet ndax kenn ma yeggale ba fa dul yow yàlla nak ma soril ci jikko yu safaano yu bon ya ndax kenn mënuma caa musal ku dul yow ngi ñaan sunu borom dafa ñu tawfiq ci di ñëwal akhirah وصلى الله وسلم على